sen ñëw fii is very much important then gis ne obviously other Gambian youths outside there if they emulate you people then obviously the family ne kon président Jammeh li doon lu mu bugg si youth yep ak li nga xam ne la nekk di wax si ndaw yëpp dangaa gis ne kon taxaw na ba pare ndax Gambia am toll na situation bi nga ni ne am country ndax ñëwuñ benn country in the sense that ne xam naa dinaa ko wax ñu ne xañ na politicien la président bu ñu am président bi nga xam ne la benn kenn la si Africa den dama dee dégg ñu bëri di wax ne amoon nañ président bu ah, ah, lu mu five président yi mel ni président Jammeh Africa ñu ko noon african si tey duñ mun a kenn du leen mun a xool du leen tuutil den ma gis mooy I guess Um, this fan Bantaba forum bi um, initiative bi nga xam ne nii la um, youth si ndawi Gambie bi yëpp ñoo war a thanks um, GRTS ak ñi nga xam ne nii ñoo um, suggest this initiation initiator ba ba nga xam ne nii youth si ndaw yi dinañ mën a ñëw pour waxtaana seen xelaat mun a uh, weccante xelaat bi nga xam ne nii ndaw yi toog file jaxasoo wala xamuñ yoon bi nga xam ne boobu lañ mën a jaar ba mun contribute towards the national development so da ngaa gis ne this Bantaba forum bi so dina si dee mun a contribute lu bëri ba dina dee tax ndaw yi nga xam ne ñu ngi toog fële ba yoon yi ñu mënoon jaar xamuñ ko so this Bantaba forum mu ngi leen a de da ngaa gis ne daf si dee mun contribute a lot towards that then tey fi ñu toog nii man su ma dama kontaan bi nga xam ne wax nii sax so daf ma ah, dafa dafa dama kontaan bi nga xam li wax nii sax fi mu toll ko mën a because damaa xam ne ah jànq yi rafet ma gis fii ak boy si nga xam ne ma leen gis fii ak li nga xam ne dama ko fi dégg naa ko si biir forum bii nii soo lu am important la waaye li ma wax rek mooy ndaw yi nga xam ne ñoo toog fële si biti di always think that ne government ñoo war a def everything pour ndaw yi ñoo war a nekka def everything pour ndaw yi mën a engage déedéet man dama wax ne du foofu because ndaw bu nekka lii sa xalaat mooy man lan laa war a mën a taxaw def pour contribuer si suma réew so loolu moo mooy war a sa force priority ak question bi nga xam ne da nga ko war a sa boppa then waaye bul toog nga ne man suma réew lan la ma mun defal so mu loolu mu tax be nga mun nga nekk di toog si jom di commencé di wax naan dëkk bi doo dee xam wala fii daal xam nga man xawma dara fekk naa yow trayuloo dara jéemuloo bokk si benn organisation jéemuloo di toog di ànd ak benn euh, organisation bi nga xam ne nii di si mun a jàngee dara li nga xam ne daf laa jëriñ wala li nga xam ne li nga xam laa jëriñ tey ak ëllëg te su ñoo wax xale tey magi ëllëg la de his excellence di président euh, taxawaayam yëpp mooy pour ëllëg ñun ndaw yi buñ sonna ndax nañ nekk ndaw yi nga xam ne ni si si Gambia bi ak si àdduna bi fu fuñ mun a su ñu mën a xam ne Gambia leen jógee ko te loolu noonu mu ngi si the conducive environment is there created by his excellency the president with the present government then loolu as far as ñun ñu ngi ko am comme this Bantaba forum bii nii ñii ñëw ndaw yi di ñëw di wax seen xelaat man lu am solo la den fu maa daanelee suma wax mooy ne dinaa gërëm honorable Babou Gueye Sonko honorable Siri Ndiaye Tidiane Diaité ak GRTS yëpp dalee ko si directeur général bi ba wàcce si suuf yëpp sa di leen wane ne lii ngeen def ñun ndaw yi mënuñ leen a fay man content naa si trop content naa si trop yow content ma am ni maa ngi ñaan yàlla dimbale ñu li nga xam ne mooy ambition ñun ndaw yi sen ambition ak ñun ndaw yi so yal nañu yàlla dimbale ñu mun a am loolu yëpp daal pour mun a continuer ma gaatal sama wax bi foofu noonu pour passe maay gu mun continuer waaw. yes thank you very much. mais moo bee kontoon la it only kontoon la. ñu ngi ko tas see woo ku baalte yi noonu fa ni ñu kewal musul ni ñu yi noonu. amanke folo kuti ñiŋ manke foloti danaka ŋamira labaŋo fana ate ke la ñinti so ñiŋ dolla kumota ate janfa la jee because fonninkewol le yitandiro to kumo folot laal to yaa fo ñami ñim si bi promotion yi loota miŋ kaŋ wo la ñindi ko ke faŋ ñinin ka ite be mu ne kenoo la i la banko ye bari kana banko ñinin ka wo miŋ ne kenoo la ite because fon eh, kebaa do yaa fo jam miŋ kira la miŋ bee la jaŋ ŋo television ol ana ñonkoten ɗol minute content ola woto sahen dawoɗa yaaje damin dadata doron fo ndin kella wulta e jiye dadata tiñaro nin aɓe kela na semboɓe warla ñatonkool le ka tiñaro ke min keta kebalti yino bari fo ndin ke ɓe kooma wala ɓe kela dadar laati ye dadaro ke kuwo ñinna mi yalon ka sike kuuti min te sembo sotla because hanin mba koros la hanin ñin fitinol mini beɓe kerin dulal to tarin ten tiñaro ɓiraɓe folola a folota santol la nan a naata laban moolu ka minnu ye a lon koolu faŋolu maala be miŋ ke kaŋ wo le keta ñiŋ sila kaŋ siyolu ti a naŋ ñonkoten doolu ka gadariŋ soto dulaalu to minnu ye a lante ñoo suusugu la kuu kaŋ jee miŋ be kelantolu bee nafaa kuwolu ti woto wo naŋ ñonkoten doolu ñantaŋ ka janfo wolu nŋa bula ñiŋ ñoŋ moo siifaalu nooma minnu buko ñiŋ fonniŋ kee ñiimaalu minnu be siirinta ñaa bee kaŋ a naŋ ñonkoten doolu banta la minnu ye a la kafoolu loo anin banko kan anin miniyalon ko e malon fana fonnin ke la maman ko nyanta ke kala daminto yino e nyante kanyin programol jibe suko de fe salon ko fanal be mala daminto la so onde fana na kumo ata jamfala mbadan na jani ala ba um nyinkara nye kontan ku bati because nin fonnin ke wulta ka lafta ka banko doku ka banko din kendo mo be la kontan ni mo fonnin ke la de men yalan ko sayete relay la mo kan be relay so to fonninkel fana banko fonninkel nga wuli nga jibe ndol fana nga kuke me alan konte la mo kam be rilayla fan le kan tomorrow sen la sen dimba al fana to ngalan ko be dimba al sotan fana salam be na dimba al sotala nyaadi sambala nyaadi comme english quand fo tomorrow is for those who work for it so ndol fana nga tra nga work na tomorrow because ngalan ndol fana ni ale be be so sima yala tomorrow ndol fana be dion la sotal men yalan ko e nyanda ke muna fantol la fion la nga men do ko so nyim si nyim si ñimsibi promotion bringa amoy nde nga condamna men soron ta fonola because fonin kellem men yalan man 25 years soto so what of dol men men yalan ko they are more than 30 years katara sirin daka bi dole ham ni ak ni ni ak ni he ala fole ko no matter how hot they are anga maybe they, it, it cannot cook yam how hot they are anga maybe it cannot cook yam ebe sila ba fala ko dole ham daka bi wa ile be siri yebulo la nyokan foko do men taraji kodoti nayetaraji my friend fonninkelu ñantaka wule fonninkelen banko doku laati ima e fo kebayana e banko doku ko fonninkelu banko mu fonninkela taati comme na président ya fo ñaami a laftala e banko dokoje so ni fonninkelu wulte koɓe banko doku la woto dol fana nga wuli nge sembentuya nde damma damma ni sa ñim si bi soro noon na sayat fan aɓe bete a balal so ala baraka a baraka baake um, mbe sola drong bawo sain na wato banta uh, miniti kilim fula drong ifana yela kumoke parce que yes assalamu alaikum greetings to gambia uh, maa ngi nuyu Babou Gueye Sonko di la nuyu yow Tidiane Jaite andi ma ñim si biir promotion ñi nga xam ne ñoo teew fii nii tey uh, man su ma wax du bëri like you know ñun dañ nekkoon youths yoo xamante ne nii ñu ngi tuddee seen booba like Benghazi for Peace so Benghazi for Peace boobu noonu ñu ngi fa amee i artistes yoo xamante ne nii tam ñu leen uplift pour ñu nekkaat ñoo xamante ne nii tam dañoo nekkaat di am um, uh, nation development for tomorrow so ñun fii like Benghazi soo we come for peace ñu ngi every youth in the Gambia ñu ñëw ñu liggéey Gambia together like you know the president says nañ uh, like in real ñu liggéey suñ réew ok comme ñun si biir promotion man bu ma ko déggee laay comme ni ko Maafu ji waxee dama over content Yeah, ak ni ñu invité fii ñu ñëw pour nekk seen audience Yeah, damaa ngi gërëm viewers outside there tamit ñoom tamit ñoo xam ne Bengaas yi ñun tamit artistes lañ yoo xamante ne nii ñu ngi ma the worst development of the country Wow, so. waaw looloo tax ñu ne Bengaas yi. so soo leen déggee is like oneness and togetherness so maa urge every youth of the Gambian ñoom tamit ñu jóg comme like ñu ñum si biir promotion nekk di def andi benga si ñoo xamante ne ni ñoom tamit ñu ngi uplift yi young artist yoo xamante ne ni dañ leen bëgg a soowa to the world waaw so waaw jërëjëfati ah, li nga kàddu li nga wax daanaka thank you very much Jerejef, Jerejef. Um, ah, we have now come to the very end of um, tonight's edition of the National Bantaba Forum. On that note, I will have to come back to Manima, who is the CEO Nyanyima? Oh. Okay, um, Tijan, like they've all said, I've been, um, um, we're so much happy and to be here once again. Um, like Babu said, Honorable Babu Gisonko said, the president have already created the conducive environment. And my secretary has said also that the President Jame is the first person to give moral and financial support to MCB promotion youth in action. And then there is something that we quote in this magazine under leadership. President Jame always said,